dafa am lu ñëw sama xel muy li ñu tuddee employabilité de la jeunesse. Mm-hmm. ndaw ñi nekk ci dëkk bi xam rek. Mm-hmm. lañ am ci daara ji lañ jógee. Mm-hmm. Euh, dañuy jéem a kurti kurti ak su néew ngir taxawal dara. ndax yéen a ngi xalaat dans l'avenir wala bu fekkee am na fi mu toll nii tembe jàppale ndaw ñooñu. ci si quelque financement ñu mën a taxawal seen ay projet ñu liggéey. xam nga laaj bu am solo nga laaj. Mm. maa la koy maa la koy wax sànq samay biir kàddu. Hmm. Touba ca kanam murid lu ñu bëgg tuubaa mel nii rek. man naa mi ngi des ci mi ngi des ci murid yi. Hmm. lu mu bëgg wax naa la ko sànq ne la say Abibu Mbàkke nee na ku dëkk Touba fay ndox ku dëkk fay courant dëkk Touba sax joxe dépense këram. Hmm. mën naa nekk xam nga loolu lu kawe la. loolu mooy dafa jéggi sax ne. ndaw ñi nga xamante ne si woon nañ leen a wutal xëy. dafa jéggi te. ni may waxee yow Touba kanam lu mu lu mu lu mu embauché ci ay nit directement ak indirectement ëpp nañu téeméeri nit. Hmm. ëpp na marsala yoo xam ne gis la yow. parce que yëngatu ci biir ci kanam jeex waaw. ñoo xam ne Touba kanam moo leen jël di fay nii yëpp seen kër di jox seen njaboot ndax sànce yi Touba kanam yor nii yëpp gone dëkk bi ñoom ñoo ko yore. Hmm. te ñu ngi ciy gis seen bopp. Hmm. Touba ca kanam lu mu oto ak nangam yëpp ay chauffeur ñoo ko yor te ñi ci dëkk ñu ngi leen fay ñu ngi gis seen bopp. Mm-hmm. ñu ne ci terrain bi tamit di liggéey ay ndawal Touba Ca Kanam la ñu ngi leen fay nii gis seen bopp. donte mm-hmm. mënoon na gën a yaatu. Mm-hmm. waaye daanu moom moo dajul suuf. ndax Touba Ca Kanam euh, projet yi bari na te te koppar yi taxu koo bari noonu ndax fi ne nii. weer deux cent millions rek mënuñu ko am. si koo xam ne soxla na weer deux milliards. te mënoo am weer cent. deux cent millions ko am mënuñu ko am. gëj mu am cent cinquante cent quarante cent soixante cent quatre mais weer 200 millions pour ñu am ko nii jafe ba pare même ñu ñëwaat ci côté aspect ndaw ñi ndaxte mag ñi moom seen wàllu woy mm-hmm. te comme ni ñuy waxee rek naar yi mën ñu gën magu démb mais gën ñu magu tey ndax Serigne Touba dëgg la ndaxte fu der bu ñuul së sëngeem rek moom moo fa ñëw yëkkati fa der bu ñuul bu baax a baax rawatina nekk africain nekk sénégalais nekk bawol bawol kon te mag ñu toppoon Serigne Touba ñëpp mi maam Thierno ak ak ñu baree baree bari ñu si bari booy dégg mag ay mag lañ bu ñu ko nettali histoire bi nii ay mag la ñuy doon ci ñun. mais ñu si hmm. ñoom ñëpp kenn làpp woon fanweer at daanaka. kon ay jeunes lañ woon. Hmm. kon ñun tamit nañ nañ ne dandu ñooñu rek jël leen teg leen suñ kanam mu nekk suñ ñu nekk suñuy référence. Hmm. ndax Serigne Touba nee na saxaaba yi ñooy suñuy bàyyi ci diine. kon ñun ñi tamit ñu ànd nag borom Touba ñu ñooy suñuy bàyyi ci diine hmm. kon liggéey Serigne Touba bi nga xam ne ñun amuñu woon sens ñu ñun xam ne ay ndaw lañ ay génération 88 89 90 amuñu woon sens amuñu woon sens fekk carrière bi demuñu woon ci carrière bi hmm. joxuñu woon joxewuñu woon ci ñaar fukk ak juróom-ñett ya ñu su bari sax demuñu xel ko hmm. kon saxaar sa sa saxaar bu xamante ne si moom la si mënu soit indi woon nga xam moom mooy maanaam soir amatul jële ko njaareem ba fii mm. suñu ma ngi defoon ñun amuñu tawfeex googu fekkewuñ mm. wuñ ko kon bu yàlla dogalee ab saxaar bu yees peq ñëw jóge tuubaa fii jëm direct ci borom Touba kon kenn warul tàdd saxaar boobu noonu ñëpp dañoo war a fàggu suñu billet mm. bu saxaar bi gaaree ñu dugg ci fas yéene jëriñ ci borom Touba te teyit lu gën a day waar mooy Touba ca kanam daanaka ndaw ñi ñoo ci gën a néew ndaw ñi wuyu si wuñ déet waay naa ne effectivement wuyu si boo xoolee mag ñi ñoo ñoo si ak jigéen ñi jigéen ñi surtout jigéen ñi daa mel ne ñoo gën a yore carnet yi carnet Touba ca kanam yi waaw yore lépp waaw mboolem ndajem Touba ca kanam boo ci ñëwee soxna yi ñoo koy taaral sol seen verre blanc ba ba mu taaru hmm. ñoom ñooy ñëw yendu fa ñooy togg togg yi ñooy joxe xaalis yi ñooy defee lépp versement yi bañ nañ ko ba ñoom natt yu ñoree léegi sax maanaam day nekk sas boo joxe sa natt joxe joxe ci Touba ca kanam waaw hmm. léegi te pourtant ndaw ñi ñàkkuñu ko hmm. xale yi ñàkkuñu ko ku ci nekk jeunes yi hmm. fii nii sa téléphone yaa ngi am connexion H24 yaa ngi am ligne d'appel par un mois bi soit abonné nga abonné nga ci ci ci ci ci seetaanukaay film yeeg nangam nangam di fay par nangam weer teewul tamit euh, am nga salle de musculation boo abonné am am loo fay fay weer yaa ngi yaa ngi am looy warlu loo xamante ne si nii tubaab mi ngi leen laaj weer 1000 francs te pourtant tali yi bu ñu ko deferee xale yi ñoo ci gën a bénéficié wu ndax mag ñi seen wàllu wéy na hôpital yi bu ñu ko defaree xale yi ñoo ci gën a bénéficié wu ndax seen wàll ndax mag ñi seen wàllu wéy na ainsi de suite ainsi de suite kon xale yi nañ gën a bàyyi xel Touba Ca Kanam du leen yàqal dara da suñ mun taxaa neewoon Touba Ca Kanam ab tegandaay la par exemple man maa ngi nii man tout tànk la mun naa ne parce que 88 la hmm. teewul maa ngi si biir kuréel gi ndax daf maa yàqal dara Mm-hmm. yàqalu ma ah, dara. Mm-hmm. te pourtant même même ñu ci am woon fayu ëllëg amuñu fay si ne mm-hmm. sa raska rek defar sa gox fa nga dëkk. fa nga dëkk rek. aspect de citoyenneté bi da ko jaroon. ndax état mënul def lépp. dëgg la dëgg yow bu ma joxee sama tuut keneen joxe tuutam ah. suñ ko boolee loolu day day nekk dara te suñ tubaab dañu ko jàll jàngaloon bu yàgg. mënal sa bopp sañal sa bopp ndax ku la mënal sañal la. te amaana mu nekk koo xamante ne si waru laa sañal. dëgg la. ndaxte yoonu murit naka jekk mboolem boo demee boo demee ci dëkk yi foo dem da nga fekk tabaxu colon yi. Mhm. mais fii rek nga ñëw doo doo ko fekk. dëgg la lépp noo koy defal suñu bopp. dëgg la kon bind boobu sëriñ bi jàngal ñu suñu suñu maam yi mokkal ko suñu bàyyi yi mokkal ko kon ngalla ndaw ñi bi mujjee poussé bu mu réer. macha allah tubaarkalla